ay murit lañu yoo xam ne sëñ Touba rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def. sama cosaanal ñëw ci daara ji man Serigne Abdou Lahad moo indi ci daara ji 57 bi ma jëlee suñu dëkk jamatil laa jëkk a jaar. jama laa jëkk a jaar. ñu dajale nu fa ban mat sartu oto sëñ bi jëlenu jamatil yóbbu nu Daaru Salaam Mbokki 57 bi ñuy romb fii ci péncum jumaa ji ay jàll xeer rek laa fa gis ak li wër jumaa ji ay new yu gàtt ma nekk Daaru Salaam ah, ma nekk Daaru Salaam nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa juróom-ñaari at ba ko juróom-ñetteel sëñ bi ni ma na nga màggal si ma ñëw màggal si bi ma màggal see juróom-ñaari at yëpp gisuma sama yaay bi ma màggal see laa gis sama yaay ma màggal si màggal gi jeex lu delluwaat Darou Salaam bukki bi ma nekkee Darou Salaam 62 sëñ bi yële ma Darou indi ma mbaraan ma ne fi 63 mu jëlee ma fi yóbbuwaat ma euh, Mbadiane 64 ñu dellu Dar Salaam boobu man yaar yat taari yi laa jaar jamatil jaar naa fa waaye jamatil baa fa jaaret jaruma ngir muritu dañ fa jaar ngir ñu dajale nu ngir indi mi ci daara ji Dar Salaam bokki euh, Mbadiane Mbaraan Touba Bel waaw def naa ci daara ji fukki at ak juróom-ñett yor nañ ma fi juróom-ñeenti at jëwriñu naa fi juróom-ñeenti at waaw. doon nga yor nañ ma juróom-ñeenti at jëwriñu naa juróom-ñeenti at waaw noonu daal mooy suñu tàmbalib daara waaw. Serigne Abdou Lahad daal moom nañ doon leen ak moom départ bi ca Darou Salaam mooy liggéey rek. ak jaamu yàlla kon loolu lañ sëñ bi doon sant waxtu wu daal noo ngi tool yi bu tool yi jeexee noo ngi ci kër gi di ci kër gi di gorey xer gorey laa gore gi tax feteñ sàkket rabat tekki néeg ba ba muy taw nu nefa nefa nefa nefa nefa nefa ba 67 sëñ bi jële na fa ak waaj ji Cheikh Fatou Touré mi ak lenn ci jëwriñ ji nu ñëw miir si kër gi këram gii sëñ Saliou dëkkoon mu taqaloo kër sëñ Saliou kër sëñ xam nga ñoo dendal nu ne foofu daaray kaamil jii noo ko miiraale ci la nuy moom ba jant so noog sëñ Cheikh say nii tey waaw waaw noo miir kër sëñ bi miiraale kër sëñ Saliou miir daaray kaamil nga xam ne bi ñu fi jóge sax tawul taw bu njëkk bi fi jógee defe naa dafa taw nu daal di fiy jógewaat takkaat suñu nag demaat Daaru Salaam mbokki defa dafa 67 68 xam nga ca nawet ba man maa ngi fàttaliku ni yaakaar naa ne biñ may woose daal ni ma sëñ bi nee na ngeen ñëw am nawet la defe defe naa daal ci baxaw ci baxaw la ma fekk daal ba xaw la ndax fàttewuma ba tey guy ga ma gañ ma wàccee woon ni ma sëñ bi nee na ngeen ñëw yéen mag ñi ndax sëñ Fall dafa nelaw ñu daal ñu indi ci camion ñu ñëw fii noonu daal Darou Salam bokki noonu lan fa nekkoon liggéey waaw sëñ bi nuy bàyyee ay fas sunu njëlbeenu liggéey sax konka ak larmet lan doon def wóor ji konka ak larmet lan doon def ba mu yàgg nuy bàyyee ay fas ba mu yàgg nuy bàyyee ay nag bàyyee nan fii mbaam itam waaw xam nga lim doon bay ci gerte bariwul ko ko doon bay ay fukki junni bari bay dugub bay gerte noonu lan doon def saa bu liggéey Moussa jot boo gisee ci dëkk bi de bu liggéey jotut di nga ni ñii du ñu dong waaye nag liggéey jotee ba nga gis nu ca toolee di di ni ñii du ñaa gisan ca tool yi ñaa ñaa gisan ca dëkk man daal noonu la nekk woon sëñ bi mu yar nu ci liggéey ak jaamu yàlla waaw di nu digal nuy julli di digal nuy woor nu nekk ci liggéey ak jaamu yàlla loolu daal lan nekkee woon ak moom waaw. li mu jëflante woon ak man ci yokk jumaa ji day moo de dama cee sasan aw sas sas wax man ci sasanit dama toog fii ci vingt-huit sama benn xarit bu jógee Ndakaaru ñëw ni ma nan dem nga yóbbu ma ca sëriñ bi ndax dafa am lu nu dajale woon ca pàkk ba nu doon liggéey muy juróom benn fukki junni nu war koo def ci yokk jumaa ji ma bëgg nga yóbbuma ci sëñ bi ndax dama bëgg it sëriñ bi ñaanal ma ma ne ko ah man de waay maa ngi doon dajale li ma bëgg a yóbbu mayit ci yokku jumaa ji te matagul ndax man fukki junni laa bëgg a joxe te juróom la amagul waaye nag ginnaaw si soxla daa jàmp nan ànd rek mu daal di jël fii oto dem yàlla tombe na heure yii la sax ba nu yeggee nu fekk sëriñ bi toog nu nuyu ko ma xamal ko ni ko kii day am satu jàng da tudd sama xarita daa jóge Dakaaru ca barab ba ñuy liggéeyee ñu dajale woon juróom benn fukki junni yu war a indi ci liggéey jumaa ji mënoon naa ko indi nag dafa bëgg it nga ñaanal ko ndax la am lu muy tawat ci yaramam mu daldi jël xaalis ba jox Moodu Maamun ni ko bindal leen tontu ma daldi ni nii ne ko man itam ma bëggoon a joxe li may tàmbalee ci liggéey jumaa ji ba ma ko ne nii mun ma yow nag tëyal li ngay joxe ndax sasuma kenn ci liggéey bi waaye yow dama lay sas alaaji moom am daal may déy ni ma nee ko dama ko ci tàmbalee ma ne ko man kay dama ko bëgg a tàmbalee ci ci léegi may sas mun ma téyal rek li ma lay sas boo koy indi ñëpp koy séen ma ne ah lu ñëpp séen de dana rëy ma ma ko nag am satu mi nag daa bëgg nga ñaanal ko mun ma demal wuti biteel indi ma ñaanal ko ci ma wuti biteel indi ma ñaanal ko ci ba noppi daal ne ma Abdoulaat ma ne ko Mbàkke mun ma kaay marandu si bafi ma mu ne ma bis bi ñuy teg xeer wi doj wi sax la ma wax néewulu xeer bis bi ñuy teg doju doju jumaay ji nang ma indil téeméeri bërigoy ciment ak fukki bërigoy weñ dégg nga nang ma ne waxte bee ko sarte bu bés baa ma ne ko incha allahu fas naa ko de mun déggal ba wax ne ko waaw mu ne ñoo kenn ni daal dugg ci néeg bi nii noo ngi toog nii nii toog alaaji mu doon ne ma ne ma ah waaw nooy def ma ne ko ah lim ma sas de amuma ko waaye nag yaakaar naa yet laa amit na xaju ci mun ma loo mane ko gis nga sama kër gi nga xam dama koy door sanc mun naa ma ne ko ma yegg tubaab ko jaay de mun ma ah yow boo ko jaayee sa waa kër ñëpp noo leen def ma ne ko ah nu ma leen di dafa baa amul woon kër mu ne ah ndeysaan ci fi nuy waxee lool rek sëñ bi daal dellu si toogaat nii daal ne ko Modou Mamour sa waajo lu wax mu ne ah moom de am na lu mu wax mu ne ko lu wax mu ne nee na këram gën da koy jaay mu ne ah liggéey bi jumaa ji de jar ñu toj sa bopp bi sime yoor gi simang bi na ko jaay waaw nii la ko na ko jaay bu mu waxee loolu rek lu daal tàllal loxo mu ñaanal kër sëñ Seexu naa mii laa dem daanaka defe naa boobu timis jot na saa bi sëq may watu ma wax sëñ wax sëñ Seexu ma ne ko bopp bi sax kawar gi sax attantu ma ko. ma watu du falaa fanaan kerooga. falaa fanaan. falaa fanaan. xëy ñëw Touba ni kër gi daa koy jaay ku man daa jaay kër gi rek daanaka doo gëm jaay bi ndax dañuy laaj lu tax ma di ko jaay. kër gaa ngi nii ci ñaari baay faal ci essence bii yoon bi rek foofu la kër gi ne te diggante bi eh, defe naa ñaari semaine dox ci yokk jumaa ji waaw te war naa fee jaay kër gi joxe lañ may liñ may sas ma ñëw daal di tàmm wër yi di leen ko jaayloo ñii naa jaayul kër gi ñii naa lii mu mu si nga fee ca kaat ma ndaw ma dem wax ko ko mun ma señ laat mënoo def yenn pexe ma ne ko déedéet yenn pexe yu dul jaay saa kër daal man xuma ko xam naa lii kenn duma ko lebal kenn duma ko abal te it ginnaaw am naa la ko mën a saafara muy kër gi naa ko jaay ne ci njaay mi ne ci njaay mi ne ci njaay ba mu ne ñeenti fan kër gi wàcc ak ngoon dajale saa waa kër ñi fii ci biir kër gi ni leen. xam nga luñ teg xeeru àll ba lañ ko teg. man leen talaata ma dajal sa abakar ñëpp nuyoo ñoom ba noppi ni leen talaata nag dama bëgg kenn ku ne wuti foo dem ndax kër gi jarut te duma lay dara sëñ bi dul jox ko kër gi dama fas yéene daal bu asamaan setee ci àllarba ji ndax talaata man fasuma yéene man moom kër gi duma fanaan fas naa yéene bu àllarba bu ma xëyee jox sëñ bi caabi ji kenn ku ne nag nagu fi dem ndax man xuma fu may dem Moustapha Guèye sama rakk yi ma ne ko soxna Guèye mii bu subaa nga yóbbul ma ko ci suñu dëkk mu toog fa sama yaay ba ba may xam fu may fu may dëkk man ma xëy dem marché sama place bi ma demee mu signal fekk ma fa ci yoor gi ne ma waaw sëñ daal sa mbir ma fu mu toll keroog yoor-yoor googa ba mot signal daate ñëw jooy naa fa jooy yoo xam maag yàlla rek ko xam ndax nim naa di yóbbu kër gi te bëggan rek ni ma ko sëñ bi waxee rek ma def ko ni ko oto bee moo ko sarsi yàlla dogal bi ma sëñ ñëwee waxtaan ak man ci loolu ni ma ma ne ko ma nettali ko lii ma leen li leen jaay kër gee sama xalaat moom ne ah man de sëñ laat loolu du sama xalaat xaaral ma jóg man defi pexe daal di jóg ñëw fii ci Ahmadou Diop mi ma dendal net wax ko ko nettali ko comme ni ma leen nettali Ahmadou Diop ne ko boo demee na sëñ laat ñetti ñu ngi ñëw bu ñëwee benn bi ñu ko wàccee ba mu des 10 yi ko sëñ bi sas ko ko lebal ba ba kër gi jar mu dem ci jiili jéeg meet moom it nettali ko ni ma ne ko neel Abdou am naa feer buy ñëw bu ñëwee danaa ko lebal fukki bëri ko ba ba kër gi jar amatul li yàlla dogal yëf yëpp daal di yéwén si suba si bi ma xëyee bi ma yendoo foofu ba ba ca ngoon camion fanaan si ñu wàcc ak ba mu des di doon camion bi sama buntu kër la fanaan ma xëy dugg ci ci kanam dem ci jiili yàlla dogal feer bi ñëwul waaye bind na boobu wane ni feer bi am naa fi daal di tonni feer am naa fi fukki bëri koy feer ma daal di toog ci kanam wata bi dem yàlla tombe maa ngi fekk sëñ bi toog ci jàkka jooju ñu naan sëñ saama ko fi defal fi laa fekk mu toog ma daal wàcc na ko ma ko jub mun ma dangaa ñëwoo ma ne ko waaw mun ma anamu ma ne oto bee ko mu ne ma demal ci si la ñu wàcce ko te na ko ber ma dem maa fay mene bari ñu wàcce ko ber ko nee ca koñ bee bi ñu ko wàccee ba ma ñëw sëñ bi wàcce nañ ko mu ne ma wàcce nañ ko ma ne ko waaw mu ne ma mbaa dañ koo ber ma ne ko waaw ma daal mu ñaanal ñu dem ba bayta xeer wi lii nag moom sëñ bi waxuma ko waaye Aliou mi ko sëñ bi wax moom moo nett bi bañ tegee xeer ba am ñetti fan Aliou ma woor ma ñëw mu ne ma laat gay man ko mu ne ma santal yàlla man ko ah, sant naa bu yàgg mun ma gis nga sa semang boobee kere ba ñuy teg xeer wi une heure ci guddi lañ ma woo sama kër ni ma ma ñëw sëñ bi ni ma ana semanga plaat gay ba ne ma ne ko ma nga fa de mu ne mun ma waa danga koo ber ne ma ne ko ah mun ko nañ ci jël ñett saaku sëñ bi teg ko xeer wi bu laal benn semang it te jeexul loolu nag moom Aliou ma ko nettali moo ma nettali loolu de lii daal yàlla jagleel na ma ko bi ma yóbboo bi ñu amee ñetti fan sëñ bi yónnee na ma ñaari mbubbam ak dàllam ma barkeeloo ko ginnaaw bi it ka ku indi woon mu ne nee naa dana woo ba ma toogee ba am weer woowaat na ma am yi mu ne waat ak man ba mu may jële suñu dëkk nañ doon wecc koo bëgg koo jox sama rakk ak yëpp wax nettali waat na ma ko li ma defal ndimbal mënu ko weesu mm-hmm. waaw yàlla dogal nag kër gi nag di may yóbboo loolu ba noppi nag ñaar fukki fan ak juróom laa am kër gi jar waaw bi kër gi jaree ki ma ko jaay ni ma may naa la nga dëkk ci juróom benn weer ñaar fukki fan ak juróom laa ci dëkk jox koy caabeem jënd ba ma jaayee kër gi saafara naa ci li ma sëñ bi sason jëndaat naa ci kër àggale naa ko ci xaalis ba desoon na ñeen fukki junni jënd naa ci kër ba sëñ bi ma ci ñaanalaat ci kër gii ma dëkkin fii ci waaw fii ci Baleen sëñ bi ma ci ñaanal ni ma ñaanale ci gii ni la ma ñaanal ci gee ma sëñ waaw loolu daal yàlla dimbali na ma ci mun sëñ bi rek ak jaamu yàlla lu mu sëñ bi doon digal mos na maa ne wool donga yëpp ñu ñëw moo woo ñu xam naa booba bu nawee fay tawat seen tawat mu daal di ni day li ma leen di doy de mooy dama bëgg gune ndaw yii ngeen yërëmal ma leen ndaxte kat leen leer ni gune yii kenn ku ci des sa jëm bàyyi la fi taxawe nit ki mënta weesu jur doom tudde la ko jox la ko kon nag dama bëgg ngeen yërëm leen waaw yooyu daal daana ko wax noonu ah jamono waaw ah, ni ni nag ñoom seeni baay wàcc nañu man maa ci des de waaw waaw loolu moom nun ñi daal lu ko ñoroon la donga yi lu ko ñoroon la wax dëgg yàlla di leen sant rek di sant yàlla di sant yàlla ak sëñ Touba di leen sant di kontaane ci laaj yi ngeen laaj ci jëf leen di noonu jëf leen liggéey bi nu liggéeyal sëñ bi laaj ngeen ngeen dinu ci laaj man nag saam xel a waaye ko war a mën a waxtaan ci sëñ bi laaj la ndaxte du ma du ma ca damu de waaye lar na sëñ Seexuna mi lii de maa maag waa jii de bi ni dëgg la sax ci daara ji lan nekkoon waaye nag am nanu man nañ ci cër de loolu de mu wóor na sëñ Seexuna mi nun ñaar ñii de ñëpp a bokkan na ci daara ji nag liggéey waaye nag am na leneen lum mu sëñ bi séddoon de wax dëgg yàlla waaw ndax man day yàlla dim leen day jaxasoo woon na maag moom lool de lool saab xarite wan nag yi mu jëkk jëkk jënd man mii la woo ak takkusaan yi ni ma demal ci Cheikh Coro mu jox la nag yaa fa jënd ma dem indi ko ba ma ñëwee mu ne ma dee ma ci yóbbu tool nga xam bu ma xëyee dama koy takk yóbbu ko ci moo Baye Modou Awa Balla ak baay Balla Soxna ñoo ma yóbbu leen tool ya soo ma demee wàcce leen fa jël ñaari bëri go rooti dikk takkusaan ma yóbbu leen dikkaat jëlati bëri go rooti